xamna sax en tant que membre conseil d'administration administration dinaa ko waxay li tax lima ma fi ma koy gën tek deug deug deug moy nek talibi seigne touba Tuuba ma di ko wax bëgg ñu xamne ne hôpital bi dama gëm naane ne danañ dem be ku fi ku fi ku fi nekul dana la ku fi nek ku fi nekul dana la gëm naane itam képp ku fi nek di liggéey te sellal def la nga man ak lo mënut te sëriñ bi jaral la da nga am payu adduna gu doy sëkk waxuma la payu àlaxira loolu liggéey sëriñ Tuubaa moo ni mel waxit ne sëriñ bi moom képp ku nekk ci mbiram te jéem caa dugalul noona te ànd caag yéene la ngay jéem du sotti te suñ borom dana ful la nga yéene woon këppaat la loolu ñëpp yóbbaale ko xam ko waaw fukk lu man chatama ni awlaama fa hablahu tawbata wastislaama loolu ñaam sens sëñ bi ne ñi ma bañ dañuy dem ba mu yàgg ñu tuub rëccu waaye ñu am sens waaye ñu amul sens duñ àgg foofu waaw kon euh, ñu ngi leen sant bu baax gis nañ ne yéen a ngi jàpp ci liggéey bi gis nañ yéen a ngi jàpp ci jàppale directeur ñu looloo nu fi bàyyi ñun ñi ñëpp kenn ku nekk am nga loo mën a defi waaye buñ xoolee sunu mag yi fi newoon doon tabax jumaa ji nga xam ne sëriñ bi da leen sëriñ bu nekk jumaay Tuubaa bi ñu koy tabax xam naa loolu ñu bari ci yéen xamuñu ko seex yi ñëpp seex bu ne ñett daan def da nga joxe sa xaalis danga am période bu nga xam ne da ngay toog fii ci Touba tëj sa kër foo mën a nekk Daaru Musti daañu am fii 3 mois Touba toj kalière da joxe ay nit ñu nga xam ne ay manœuvre la ñuy nekk ci ci jumaa ji te kenn du leen fay man xam naa ñu bari ñu nga xam ne sëñ joxe woon ñuy liggéey ci jumaa ji kenn du leen fay dara waaw ñun ñooña doon ñii nga xam ne sëñ moo ñu tànn teg ñu fi boole noogi yéen ñooña lan doon luñ fi am dañuy bet waye du luñ du luñ fursi ko tunu fi dara lu may ngërëmul sëriñ bi ak xamne li lii alali serigne touba la may su ko ñak sam faw ay ndukoy sam ñun ñu di ko ko sàmmal ñun ñi ñepp suñu ñari andi wuñ fi waye nak nag mënee su ko ñak sam il faut ñu samal ko serigne bi lolu moo ñu fi andi boy nok yeen waaw lepp lo xamne ne itam suñ ko defé dana tax ngeen gëna man seen liggéey gëna man top to malade gën leena yërem doom adam yépp yam rawati na talib kon lu ngeen leen gëna respecté gën leena yërem gën leena dimbalé gën leena tété lepp lo xamné da tax lool ngeen gën ko man su ko hôpital mané su fekkee hôpital attan na ko danañ ko def conseil bu sobe yalla su ko mënut buñ bu ñu ko mënee jëggaani fenn danañ ko def ndax partenariat bank fi ngeen xamné ñun dañ dañu ñëw dañu fi sëñ bi moo ñu fi indi ñu di talibem mu bolé nok yeen ñu war leena a liggéeyal ay serviteur la ñu c'est pas des administrateurs ñene ñu joggé Dakar ñoo di administrateur waaye ñu ñi ñun su ay surga képp lañ surga yi sëriñ bi lañ suñu mag yoyu néwon ci jumaa ji li doon def idée bobu mo nekk ci ñoom kenn daawu leen fay liñ xam nga luñu jëlé ci jumaa ji jàng métier amna na ma jëlé nañ ci manuserie maçonnerie xam ko amna ñoo nga manuserie jang nañ ko fa ñun tam pay bi yalla dong dong dong la xaar fi subhanallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir mbokk yi jullit ñoo ngi leen siyaare xanaa njëlbeen sax jéggalu rëcc rëcc yi nga xam ne waroon nañu noo fi waroon a jiitu waaye nu sof si rek ci lu baax li nga xam ne tàmbali nañ ko day cant nag ak ay ngërëm waaye cant ak ngërëm nag Cheikh si maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne moom la ñuy roy dafa xam ne boo boolee cant ak ngërëm moo moo jur soññee liggéey bii ni liggéey nag day liggéey bu rëy ndax

di Matlaboul Fawzayni hôpital bu spécial la bu bokkut ak hôpitaux yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ndax hôpital boo xam ne sëñ Touba ci joxe ndigal sëñ Saliou jëwriñ ja Touba lañ koy defee murid di ko liggéey ak Sénégalais yëpp kooku lu special la kon lépp mu bokk ak leen lii nag day loo xam ne cant la waaye soññee la day wane na rek hôpital bi lu kenn moomul la te ñépp bokk ko ñi nekk ci biir ci ñeenti borne yi ak ñi nekk ci biti ñoo ñoo bokk benn gis-gis lu baax rek lañu bëgg Touba day dëkk bu rëy tabax yi rëy lool tey baadoolo ak i néew doole nekk ci biir ku ko bàyyiwul xel rek dangay dem ba mu yàgg nga nappaaje leen kon ndokk sëñ Alioune Badara bi nga xamee ne yëf yi moom sotti ci ak def ci la waxi murit yëf liggéeyu murit du wax jëf la junniy dégg sëriñ Abdoulaye nee na benn ci sa ko gën kon indi gii ngeen indi liggéey bii te di woon ko daaw te yéen a ko def déwén yàlla na sama borom di dimbale te jàppale na ci ñi ngeen koy jox itam muy docteur yi nga xam ne buñ amuloon ay tabax yu rëy rek a fiy nekk yàlla nañu am ak wér ñoom itam yàlla nañu am ak xereñ yàlla seen xam-xam yokku te am ak déggoo ci sunu biir ba liggéey bi ci boppam nu man koo yeggale na ko sëriñ Tuubaa bëggee gannaaw liggéey bi nag sëñ Saliou def na woon ku xëy ci hôpital bi yaa ka xëy xel koom yéen a yem ci man kon nanu jàpp ne nun ci daara la nekk nekkunu ci yeneen structure yu bakk yu dëppoo yi sant leen bu baax nag ndax ñun li ñu nu sédde muy eh, eh, représentant usager muy ñi jëriñoo hôpital bi di ko jëfandikoo ñun bu nu sañoon ku fi dugg ci hôpital bi maanaam dangay ngay faju faj ma ca war te boo génnee na eh, yomb na wala fay ñu ma dara lii nag danoo jàpp ne sëñ Aliou Badara li sëriñ sëriñ Saliou waxoon ne kenn ko ne li nga moom ci liggéey bi da nga ko jël si seen wàll la lu ngeen jël si sëñ Tuubaa moo leen ko saasal boppam te wóor na ma ne dana leen jiitu fa ngeen nekk te dana leen jàppale te dana leen dimbale kon nag nu jaajuwaat ànd ci seen ànd ak yéen ba boo liggéey buñ fi ñëw lépp loo xam ne manqué nañ ko nu mën ko fee def ba ñun hôpital bi nga xam ne dañ ko tuddee Serigne Touba muy hôpitalu foo Fossine nu mën a rafaatal centre de santé yi rafaatal poste de santé yi comme système pyramidal la li tàmbalee ci suuf ba ca kaw lépp ñun ñu nekk royukaay ci Touba suñ ko deful leen bëgg duñ ko mën a am te dama daan wax ne ñun hôpital bii ki nga xam ne dafa dem ba dara di sudul faatu ñu wa nar a dee mu dee ci hôpital Matlaboul Fawzayni moo ko gënal faatoo na ci yàq jëf ñu rob ko ci cawleen ci ab murit faatoo na hôpital Jannatul Mahwa Matlaboul Fawzayni ñu rob ko ci Touba ko gën a dalum xel kon noo ngi leen sant noo ngi leen di gërëm tey ñaan itam directeur bi nga xam ne moom mi ngi fi sun kanam yàlla gën a koo jubaleeku njabootam gën koo jubaleek ñi koy jàppale ba nga xam ne ni ko Serigne Touba bëggee danañ ko ci man danañ ko ni man de defee ni ñu ko bëggee li seytaane bari bari bari bari doole attunul liggéey sëñ Touba ñun yàlla nu sëñ Touba aar ci biir aar lu ci bitti ni nga xam ne noonu la tuddee matlawul foo seen ni nga xam ne mooy làkk Touba yàlla na nu aaral xel yi aaral nu xol yi aaral nu jikko yi ba ku fi dugg te nga xam ne yàlla daa dogal nga war a wér nga wér na nga war a wéree sans borom teg la ci yoon woowu ku fi dugg te nga xam ne da ngaa war a fekk wuji sëñ tubaa itam maanaam sa sa nga faatu ci ngëm ba yegg sëñ tubaa mu tàbbal tàbbal ajal nu xam ne nag fi nu yem nun di ay docteur wala ñu ñu ni jàppale sëriñ Saliou moom jéggi na foofa ndax keroog bi ñu tàmbalee hôpital bi ba jébbal ko ko dan ko ne dafa am loo xam ne bu hôpital ba noppee ay docteur duñ ko mën te yaa ne ku ne li nga ci moom da nga ko sasoo mu ne lu loola lan la nu ne ko bàkkaar ak ñàkk nu bëggoon suñu l'hôpital bi bu bu bu noppee ban ciy faju maanaam ku ronu bunt bii rek mu nekk sa jéggi saraat nga ñàkk ñàkk bakkaar te ànd ko texe te suñ sëñ Tuubaa defal na loolu sëñ Saalu Mbàkke loolu nag ñu ngi sant yàlla bu baax ñuy gërëm ñëpp di sant itam suñu suñu suñu sëriñ ki nga xam ne moo fi nekk di say tey jii di sëñ Tuubaa dellu nekk fii itam di président conseil d'administration sëñ muy muy muy muy sëñ Xaadim euh, euh, Mbàkke nu koy sant di sant docteur yi nga xam ne ñoom lañ ko teg seen loxo tey ñaan nii nga xam ne noom ñoom noonu lañ ko ëndee ñanu ña ñamu jaar moom sëñ Alioune Badara ba yegg si ci nun ñi nga xam ne noonu lañ ko joxaat nañ ko bëggee yàlla na yàlla dimbale ba nu defee ko noona ba ñooñu duñ nu jéppi waaye sëñ bi du nu jéppi sunu borom mi nga xam ne moom it moom lañ ko jox du nu jéppi waaye docteur yi nga xam ne ñu ngi faj fii bi itam du ñu jéppi noo ngi leen di siyaare di leen baal wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi xaadim kon maa ngi lay nuyu di la sant ci sa teewaay ak ci sa jàppale Euh, diko serel seereel ñi fi tok waye makoy wax ci turu mbooleem kuy liggéey ci hôpital bi. Xaadim kon ma ngi lay nuyu di la sant ci sa teewaay ak ci sa jàppale euh, di ko seereel ñi fi tok waye makoy wax ci turu mbooleem kuy liggéey ci hôpital bi. di gërëm conseil d'administration bi dans son ensemble président bi dafa dafa japp dafa xawa euh, japp motax moo fi waye

kon ñu ngi koy seereel mbooloo mi te di leen del di delluwaat di leen sant ci ci loolu xam naa ñoom sax duñu ko bëgg waaye nag euh, wareef la ci ñun ñu ñu ñu biral ko euh, lii ñu jot tey nag muy benn euh, don li ñuy wax don maanaam may gu ñu may mu nekk matériel médical bu jëm ci malaat yi te sëñ Badara Gueye mële taxaw indi ko te mu jaar ci association bi nga xam ni moom ci la bokk te ku ñu wax euh, Gilbert Gilbert euh, jiite ko nekk fële ca France euh, moom moo moom moo indi matériel boobu ñu koy sant ci kanamu kilifaam gi toog di sëñ Massamba Fall di ko sant moom itam ci jàppale gi mu koy jàppale di wax rek ni loolu bettuñu ndax moom daf di Baay fal te ku xam Baye Fall li muy tekki ci yoonu murit nga xam ni kon liggéey yët Sëriñ Tuubaa rek mooy mooy mooy mooy mooy taxawaayam waaye teg ko ci xel teg ko ci xam-xam kon euh, boom bu bu defee lii tey te ànd ci ak sëriñam dañ ci bëgg te xam ne jaar na fi mu war a jaar kon ñu ngi koy santaat bu baax ci lii di ko ñaanal suñ borom yokk mënam yokk fanam yokk wéram ba lépp lu mu naal ci lu jëm ci lii muy jëm si ci ñun hopital mat la bul Matlaboul Fawzeyni wala mu jëm ci yeneen hôpitaux yi ci senegal euh, yàlla na sam borom jàppale ko ci ba lépp lu mu ci bëgg mu am ci lu kawe njortam kon loolu lañ bëggoon wax di wax ni dafa egsi nag ci jamono boo xam ni hopital bi dafa nekk ci diggante bu xaw a euh, ma diggante boo xam ni dañu dañu dégmal ay coppiku yu am solo mu jëm ci li ñuy wax infrastructure maanaam ci barab bi tabax yi jëm ci équipement bi waaye jëm itam ci euh, procédure yi nga xam ni moo ñuy may ñu mën a fonctionner waaye loolu ci kanam dana dana danañ ci mën a communiquer waaye li ñuy wax rek mooy bokk na ci li tax ñu daje ci barab bii tey euh, ndax bu ngeen fàttalikoo ñu ko teewe woon euh, yoon yee ci gannaaw fële ci diggu hôpital bi lañ tas la ñu daje woon def fa ab tànt waaye tey bu ngeen fa demee di ngeen fa gis ay machines yu fa ne yoo xam ni ñu ngay def ay forage di seet suuf si donc étude de sol la mu mel ni am na ci lu ñu jëm loo xam ne dina am ak coppiku ci infrastructure hôpital bi waaye loolu ñu ngi ñaan suñu borom mu euh, dogal ñu àgg ceeg jàmm ba ni ñu ko bëggee ñu amee ko noonu wa wala ñu amee ko nu kawe suñ jot ndax hôpital bi day hôpital boo xam ne waa Touba lay jëriñ waaye waa Sénégal yëpp lay jëriñ képp ko xam ci sa xalat mba ci sa doole mba ci sa katan tabal nga ci dara serigne touba nga ko def kon ñu ngi di sant borom Touba ak Cheikh Fall di sant serigne khadim mbak mi fi toog ak sama sang bi di Mamba Samba borom ngati Fall di gëna a santati serigne Sidi Cheikh mukhtar bi nga xam mo fi serigne Touba fi di borom dekk bi

de sëñ Touba rek tax manam xam-xam bi lu tax mën xam euh, xel bi ak xam-xam bi moy lu tax ñu def Touba ñent yoon dañu gis na Touba dafa doon deuxième ville du Sénégal nek ci point bu stratégique bo xam ne tey jii bu ñu demee and ak Touba bi ñëw fi la première fois ñu def ko dugg xol def sondage hôpital bi xol nit ñi fi ne ak nit fajo ak qualité bi fi ne ak ki fi nekk. Eh, bëgg-bëggam ak yéeneem gis tam toog si biir xam nga tubaab dafa xarañ parce que dañoo ñëw dugg ci biir hôpital bi laaj ay nit ñi fu ñu jógee ñi naan raneru ñi naan Podor ñi naan Matam ñi naan ku ne daal di ñi naan kaolax ñu daan ne ma ah mais hôpital bi niveau lan la boobu man techniquement mënu maa répondre ndax du ma technicien de la santé waaye comme ñoom ci xel mi ñu am ba tey may waxaat ci xel xam nañ ko

man nak samay wax moom bariwul ndax bu maa wax waye dal japp naa ne euh, partenariat bi yamul fii rek association bi rek li ñi ñaan rek moy que ce matériel soit bien entretenu au bénéfice de la de de de la population et des malades surtout parce que entretenir matériel bi moy tax mu meuna dundu ñu mën ci fajj ñi nga xam ne ñoko ñoko ko ñoo soxla. te gis nañ ki ñu àndal fii ci tuubaa gii di ko fi def euh, am na ci pas-pas boobu te am na am na am na yéene jooju kon daal ñuy sant Serigne Touba di sant Cheikh Fall bu baax di santati sama Serigne bii di Cheikh Massamba Moustapha borom ngàcc nga xam ne moom ci dimbali tam ci lépp ànd ceeg man di sant tamit Serigne Cheikh Anta Mbacké Daaru Salaam ak sëñ Xaadim mii ndax sëñ Xaadim dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoo ma téye sëñ si ak sëñ Cheikh Anta ak sëñ Bas Mbàkke xam naa new fi mais dina ñëw ndax ñooñu ñoom ci dugal euh, waaye daal ñu jàpp ne association mieux vivre ak Gilbert Barok ak seen membre li ñuy ñaan mooy bu soobee yàlla ne leen Touba gii ak li nga dëgmal ak ñi fiy ñëw affluence de malade yi fiy ñëw dinañ ci jàpp jàpp ci insha allahu rabbi ba nga xam ne day nekk hôpital boo xam ne nii dootul jar ñu bari di jóge fii di dem Ndakaaru di faju ji waaw di santaat yàlla bu wér rek di julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa waaw di wax ci eh, jërëjëf Cheikh Sidou Moukhtar borom dëkk bi mu dimbali nu ba ñu mën yéene bi ñu am ci réew mi ci dëkk bii ci Touba ndax am nañ ci yéene ñu mën koo yeggale waaw alhamdulilah